dama fee gis yu ma seetlu te ñetti at a ngi nii maa ngi koy gis boobu mooy ban mooy néew kàttan dafa bari ci dëkk bi xaw ma nag olof yi ma nañ ko xam walla déet ci góor ñu bari néew kàttan dafee bari lii nag moo ko def na ma commerçant yi baal nag waxuma pour yàqal leen dara gis nga ginaaru importe yi ñuy indi góor gu ko ci moytuwul doo tane sa jabar ci kaw lal ginaar yi ñuy indi ginaar yoo xam ni doo gis dënn bi mukk pooj bi rek ngay gis moytu leen ko foie importe yi dañu ko moytu foie nu ngeen koy waxee ah res bi res bi resu importe yi ñuy jaay yaa xii res res bu ñu jël di dóor jaas yi tuy yi nekkatul res du reesal res daal na jóge ci bëy bi nga gis ko mbaa ci xar bi mbaa ci nag bi mais resu importe yi ku am kër moytu ko ku am jabar moytu ko kuy dugg restaurant moytu ko yooyu baaxul beneen bi mooy ñu yëg nii viande importée yi mooy mooy yàpp yi nga xamante ni day jóge bitim réew ku ko mën a moytu nanga ko moytu te gis nga jamono biñ toll mënaas dafa laal daanaka góor ñu bari maa ngi nettali kii ci suba benn xissa jotul woon àgg bu daw yaram benn jigéen bu nekk ak boroom këram ñu séy ay at ndaw si amul doom te ndeke jëkkër ji ñetti at daanaka jigéen la ko moom ndaw si di ko muñ di jéem di jéem ba pexem jeex xam nga feebar bi gën a bon ci góor mooy gaaw a jeexal te temps yi dafa bari gaaw a jeexal li tax mu bon mooy jigéen ak góor bu ñu àndee ci lal jigéen bi mooy mujj am bànneex waaye comment ça nag ñu départ rek góor gi pare bàyyi jigéen bi noonu su yàggee da nga wax sa jabar ne la xam lan moo tax li ngeen séq yéen ñaar mënatoo ko loolu góor bu muy dal nanga ko jéem a faje ndaw si wax lu mel noonu ne ko ndénkaane bi lañ lay dénk mooy sa jëkkër ndax mën na ñaan bi audu bi izzati llahi wa qudratihi min charri ma ajidu wa uxaadir mu ne déedéet loolu jëkkëram du ko mën ndax jëkkëram ouvrier la te mënul liir ne ko bind ko ci français mu ne bu ma ko bindee du ko mën ndax du jàngkat kon yow dee ko ko defal bépp góor buy yëg néew kàttan walla feebar ci wàllu lal del jël sa loxo balaa ngay tëdd ak boo yeewoo nga teg ko ci sa naq nga wax auudu bi izzati wa qudratihi min charri ma ajidu wa uxaadiru nga wax ko juróom-ñaari yoon nga saxoo ko biidnillah saxoo ko te bañ ko bàyyi danga dem ba yëg sa bopp jàppul woon ni lii lu mën a nekk la mais ndaw si yow mun nga ko mu ne waaw man dey jàng naa arab ko bindal mu bind nga su ngeen di tëdd waxal sa borom kër nga defal ko loolu mu dem saa buy tëdd mu defal noonu borom këram dema dema dem ba benn diire bi yàlla may na ko mu jël ëmb bi mu dajeek waa ji mu séen ko bi ko waa ji séenee ne ko ah xanaa de léegi jàmm am na ndaw si ne ko bu baax a baax léegi moom jàmm am na bu baax a baax ndaw si jooy jooy waa ji ne ko looy jooy mu ne ko dama am naqar li ma am yëpp dama ko jeexal ci ay faju tubaab ndeke yoo yàlla mi ngi ñu sànnil or bu tool nii te xamuñu ko mu ne loolu moo ma jooyloo ñu ko yow ku war a sant yàlla nga ndax jigéen bu bëgg lu baax nga am na jigéen bu mu doon doon day weer jëkkëram toroxal ko kii du góor kii mënatul dara kii nàngam déedéet compagnon sëy ñaar la ñu ko bokk nañuy dimbalante góor gi nay dimbala jabaram jigéen ji nay dimbala jabaram néew doole yu bari ci kër li koy indi mooy ñàkk zikrullah ala bi zikrillahi tatma innul qulub mbokk yi tudd yàlla day dalal xel bu xel dalee yaram wér ku la ëpp lu muy tudd yàlla gën laa wér ci lal ak ci lépp laa wax di tudd yàlla del tudd yàlla lu bare bari istigfaar day maye kàttan istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midraara wa yumditkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara istaghfiru rabbakum beneen bi lu ko borom bi jeexee yazidkum quwwa yàlla may leen kàttan kon góor ñi maa ngi leen di dénk lu mel noonu te moytu façon ñam yi ma leen wax gis nga boisson gazeuse drinks yu am gaz yi ku ko mën a moytu na ko moytu baaxul ci góor moytu leen ko commerçant yi nag nañ ma baal waxuma pour yàqal leen mais nanu ko moytu xale yu góor yi nañuy far di ñaq ñu baal ma nag gàm bi seetlu naa fi loo xam ne baaxul de xale yu góor yoo xam ne demuñu fenn du ñu entraîné du ñu def dara biir yi jëm ca kanam baaxul de baaxul ubbi leen saalu gym yi day leen entraîner jullit bu góor day yëngatu day ñaq mais liggéey ñëw tëdd wàcc ñëw reer tëdd bu yàggee rek nga nekk néew kon del yëngatu del ñaq commerçant yi nañu mel noonu ñoom it topp njaay meeg jënd bi rek rek rek rek rek nañ ci boole di entraîner di ñaq yàlla yàlla jégal ñu jégal leen sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah